tàng na épargné tuñ kenn. eh xeer xeer ñun journaliste yi ñoo nekk seen biir ñoom ñoo nekk seen biir voilà voilà voilà toujours ñun ñëwal Hey, hey, hey. gis ngeen ñi ngi ni euh, journaliste yi ak euh, euh, force de l'ordre yi ñoom ñoo jege woon toon ni xeer yi nag ñi ngi jógee fu nekk force de l'ordre yaa ngi ni lii daal lañu xam ni mën nañ ko jëlee fi nga xam ni moom mooy centenaire Euh, ñu ngi nekk en direct ni fi nga xamni mom moy mooy ay yenen affrontement diggante ñi nga xamni ñom ñoy ñooy yi ak euh, force de l'ordre yi xeer yi nag bari na xeer yi bari na mi ngi joggé fu nekk loolu la ñu mën a wax mooy benn solution bi ñu am pour jox leen image

leen ngir grenadier metti lool <coughs> saf sàpp <coughs> saf na sàpp moom vraiment tagader yaa ngi taxaw waaye jeunes yi mënuñu sax accéder côté bee ndax li nga xam ni moom mooy xeer yi lan moo la nekk. xanaa de nu bàyyi Ousmane Sonko. ndax problème ndax ndax yow parce que problème bii. Euh, su ñu bàyyi woon Ousmane Sonko mu jaar fu mu waroon jaar problème bi du am. xeex bi du am. waaw. kon tey euh, teel ñaari micro yi ak bi tey euh, naka la ñu gisee tey li nga xamante ne tey moom lañ téye nii ak dëkk bi nu mel nii. metti nañu torop ba si kanamu yàlla ndax parce que nii wut ko woon nii bëggee wut ko woon nii waaw yow lan nga lan nga ci biir Pastef man duma dara <laughs> ah, soppe Ousmane Sonko ma am <coughs> est-ce tamit euh, ndaw nañ ñoom wax leen ne yoon bii ñu jël du yoon bu baax. loolu suñ ko defoon avant problème bii du am xeex du am dara du am jàmbaay am ndax parce que ñun jàmm la ñu bëggoon comme te bay nu ñu nag jàmm nag nanu dem at nag suñu kanam. soo ni sa euh, ko woowee 9 waaye ah, dafa nekkoon ci yoon bi ñu di ko ne jaaral fee pour

Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ful bi ñu ngi nekkee côté be force de l'ordre yaa ngi nii ñu jàkkaarlool mbir daal xam nañ ne tàng na jër xeer daal mi ngi jógee côté bu nekk gaz yi gaz lacrymogène yi tamit euh, policiers yaa ngi koy gendarme yaa ngi koy sànni bu baax voilà yéen a ngi gis ni ñu ngi nekk fii ci centenaire ba tey ngi en direct ci biir limametti com xeer yaa ngi dal bu baax xeer yi ñu ngi dal bu baax yéen ngi jàkkaarloog euh, gaa yi ni ñu ngi sax échangeante li nga xam ne moom mooy ay xeet ñoom ñuy sànni ñeneen ñi di leen ko delloo en direct fi nga xamné mom moy euh, centenaire yéen a ngi gis légui policier yi sax dañu yor euh, li nga xamné mom moy ay xeer di sanni population bi ak ak la bo Oh, yeah.

gis ngeen xeer yi eh, fi mu ne même ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ñoom dañuy jël ay xeer di sànni di ko delloo ñi nga xam ne ñoom ñooy ful bi. <laughs> leen di fatali ñoo ngi fi nga xamni mom moy centenaire mbiri tang na jër ci digënté euh, policier yi ak ñi nga xamni ñom ñoy euh, xalé yi ñu sax dañuy wut fu ñu làqatu ndax xeer yi moom fu nekk lay joggé police policiers yi ñoo nek ni en civil yoré sen ay gaz euh, lacrymogène ñi yoré ay euh, xéer di jamarlok ñi nga xamné ñom ñoy ñooy manifestants ñi ngi tëkkonte policier yi yaa ngi tëkku ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi xale itam ñoom tamit delloowuñu benn yoon loolu ñi ngi leen koy delloo bu baax di saaga def avancement ak ay xeer ñi ngi ñëw xeer yaa ngi ñëw bu baax gis nga fi ne daw nañ Ini grenade lacrymogène yaa ngi ni dañuy arrêté ba ci kanam ndax saxaar si fi ne gis ndax lacrymogène ñëpp tasaaroo nañ ndax euh, ful bi dafa jege si yéen a ngi gis jeunes yi ñu ngi nii di ñëw ñu ngi nii di gën a jege si ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, policiers yi yéen a nga gis nii may ñu yow grenade bi grenade bi dafa fort. dugal mu gaaw. Mhm. dañ koy naa la ko dañ koy sànni